bepp jigen bo xamne ne bëgg jëkkër am lo xamne mi ngi ni xam nga man mom sama mbir duma ko laq duma ko laq laqal mi ngi ni gis nga kum neex nga bindulu ko kum neex nga dem ci suñu cheikh mu bindal lako waye fi fii wax naa fi ba tàyyi ne gis nga mbir mi mbir mi deug ci walum sëriñ du ca bind ma du ca joxe ba ca ka koy def la fa yalla suñu borom def barke ba foofa la fofu la kaaba ne mais kaa bi newul ci sol dara yi rek ñëw na man la sëriñ bi gis nga juróom ñaari wal asri innal insana la fi usri innal lazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis ki boo ko juróom ñaari yoon saaru saaru wal asri nga bind ko ba mu jeex 7 fois nga wut jurum ñaari reen yu ñuy wax reenu cekkeer jaaykatu garab yi xam nañ ko cekkeer reenu cekkeer moom ngay wut juróom ñaari reenu cekkeer wala juróom ñeenti reenu cekkeer bu la neexee su ko defee na nga boole ko ak saafara si sangoo ko juróom ñeenti fan waaye nag juróom ñeenti dimanche lay doon nga bolo ko bëréwel ngel juróom-ñeenti dimanche neuf dimanche rek nga koy sango wala nga sango ko neuf samedi bu la nexé mais bokay sango da nga ci bolé sungu fi bëréwel ngel <laughs> allahu akbar ay way da ngeen bëgg jëkkër ah na li nak ku ko sangoo te amuloo jëkkër na xam nga noy def xamal na nak rab bu bon nga yore sutra bu cosaan